ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi gannaaw ba nu sante suñu boroom subhanahu wa taala julli ci ab yonentam Moustapha sallallahu alayhi wa sallam di sant asayqul qadim di ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaxa suñu boroom dëgëral ko te kartanal ko te wéral ko te defal ko mboolem xulafaaw yi nga xam ni ñoo wuutu mag ñi fu ñu fu mën a nekk ci réew mi mbokk yi dellusiwaat nañ ci jotaay bi nga xam ni baaxoo nañu ko ànd ak yéen muy yóbbalu suba ci seen télévision bi nga xamante ni mooy Mouride TV ba tey rek mbokk yi ñu ngi ci njàngaleem sayxul xadim nafaanallahu bi barakaati sir ismi yi mu mel ni ñu ngi doon waxtaane ñetti xaaj yi nga xam ni mooy ñetti xaaj yi diine ndax diine mbokk yi neewoon nañ leen ñetti xaaj la muy al iman al islaam al ihsan muy al iman bi tawhid wal ihsan bil fiq wal ihsan bi tasawuf mu mel ni kon bu njëkk bi te mooy iman waxtaane woon nañ ko kon ñaareelu xaaj bi ci lañ nekk ba tey muy al islaam waaye islaam moomu nag mu am juróomi ponk yoo xam ni moom lañ ko séddale comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale woon ci hadis ba wax ni lislaam day ñu ngi ko tabax ci juróomi ponk buniyal islaam ala xamsin kon mel na ne juróomi ponk yooyu ñi ngi ci li nga xam ni mooy ñeenteelu ponk bi te mooy ak wakkaat te mooy li ñuy tuddee génn asaka kon ci la ñuy te suñu jotaay bi bi ndax Seexul Xadim wax ni ama wakkaatu fal faraidu laha tuhaddu arbaan xudaaha kullaha mu ni li nga xamante ne daal mooy asaka dafa am ay farata nee na farata yooyu nag nga xamante ni moom la am moom asaka lim nañ ko mu nekk ñeent nee na kon jëlal léppam maanaam ñeent yooyu yëpp nga xamante ni moom la am mu ni nga jël ko kon asaka mbokk yi nañ bàyyi xel ni ay farataam ñeent la bi njëkk mooy niyatuna tamaamu xawlin wa tamaam nidaabiha adamu naqliha tamaam bi njëkk mooy yéene te jëpp jëf ju mu mën doon mbokk yi yéene dafa bokk ci ya nga xamante ni moo koy laytaay loolu moo taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ni innamal amalu jëf yi de mi ngi tënku ci li nga xamante ni mooy yéene yi kon yéene mbokk yi dafa nekk loo xamante ni nii lu am solo la kon bi njëkk ci faratay asaka mbokk yi mooy yéene ñaaral bi mooy mu matub at li nga xamante ni moom ngay génne asaka faw mu doon loo xam ne day mat ci yow am at day am ci yow at mat sëkk at mat sëkk da koy am ci yow su boobaa kon nga xamante ni actuellement fi mu ne ñu ngi ci février 2021 nga xamante ni li nga li nga yor nag boo ko téewaatee ba février 2022 su boobaa loolu kon am na at day asaka nag day cay daal di war waaye ñaareel bi tam ñetteel bi ci farata yi faw mu mat nisaab nisaab mooy kem bi nga xam ni moom la bu fekkee ni alal la kem bi nga xamante ni moom lay mat asaka doog caawar loolu tam kon mooy nisaab loolu moo ko ñetteel ñeenteel bi mooy ñàkk ko tuxal maanaam fi nga xamante ni fi la fi nga nekk ba asaka war la foofa doo ko jël di ko toxale foofu di ko yóbbu faneen waaye foofu nga xamante ne ni foog ko génnee su boobaa foofu nga ko joxee ci ñi nga xamante ni ñoo ko ajoo lu dul nii nag fi nga ko génnee dafa am ñoo xa ñi ko aajowoo foofa euh, dafa bëriwul masalan am na faneen foo xam ne ña ko aajowoo ñooñu ñoo ko gën a aajowoo su boobaa kon da koy da koy xaaj am loo joxe fii la ci des na nga yóbbu ko ca ña nga xamante ni ñoo ko gën a aajowoo kon ñeenti yooyu mooy ñeenti farata yi nga xam ni moo aju mbokk yi ci li nga xamante ni mooy asaka waaye nag am na ay aadab te muy ay gin yoo xam ni war na ci ki nga xam ni mooy génne asaka mu sàmmoonte ak teg gin yooyu ndax loolu mooy tax nag mu mën ci ab ab yool moo tax seexul xadim wax ni suma laha xadakaru aadaaba salaasatan tuadilu sawaaba nee na nag moom ñeel na ko ay teggin yo xam ni tuddal nañ ko ko mu nekk ñett te nee yo nag ci nga ni moi tag yi nga xamante ni dañ ko ko tuddal sa asaka nee na ci la ñuy amee li nga ni ab yool bi ci njëkk mooy wahiya tiibu nafsi fiiha mooy li nga xamante ni ngay génne nga ko ci sa teeyu nga génne ko ci sa tey bakkan maanaam ci sa coobare waaye mu bañ a nekk loo xamante ne dañ la ciy soññi wala ñu la ciy forcé nga doog koo mën a génne waaye génne ko ci sa tey bakkan ñaareel bi mooy nga génne ci li nga xamante ni moo gën a digg doomu ci sa alal waaw kon asaka itam dañuy bëgg mbokk yi soo ko dee génne nga génne ko ci li nga xamante ni moo gën a digg doomu ci sa alal waaye du caagi ni da ngay xool la nga xamante ni moo gën ci alal ji wala la nga xamante ni moo ci gën a yées déedéet waaye la ca gën a digg doomu su boobaa ca loola ngay jël dal di koy joxe ndax nañ bàyyi xel ni suñu borom mi ngi doon wax ci alxuraan ni du ngeen mën a am mukk lu baax lu dul ni da ngeen a jël li nga xamante ni moom ngeen gën a bëgg ngeen joxe ko ci yoonu yàlla lan tanaalul birra xataa tunfiqu mimma tuhibbun du ngeen mën a am mukk lu baax lu dul ni da ngeen a jël li nga xamante ni moom ngeen gën a bëgg ngeen jël ko joxe ko kon loolu itam dafa bokk ci aadaab yi nga xamante ni nii ki nga xamante ni mooy génne asaka dafa war a sàmmoonte ak moom waaye ñetteel bi itam mooy mu sutural ko nëbbu ko ci yi nga xamante ni mooy bët yi waaw mu nëbbu ko wala ci li nga xamante ni mooy bët yi maanaam fexe ba bu ko doy bu ko doy joxe mu doon loo xamante ni lu muy nëbbu lay doon waaye mu bañ ko fësal waaye loolu lépp nag lim ci jublu mooy ngir ragal li nga xamante ni mooy ngistal ngistal googu nga xamante ni dafay bijji di xëcc jëm ci li nga xamante ni mooy ayibu diine te mooy sikk soo xamante ni da koy dugal ci ki nga xamante ni mooy nit ki kon faaw nga suutu suturaal ko kon loolu bokk na ci li nga xamante ni mooy aada bi te mooy teggin yi nga xamante ni kii génne asaka mbokk yi war naa sàmmoonte ak moom kon xam naa foofu la ñuy taxawlu ci yóbbal bi jox leen dig daje incha allah taala ci beneen yóbbal seen mbokk Mahmoudan Diallo fi ci Touba li gën ci nun yàlla ñu suñu borom defal te dëppale ko li ñu gënal wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa